الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu dellusiwaat ci seen 1505 bi awnillahi wa tawfiqi di jégglu mbokk yi ci bis yu yàgg yi nu tëb te defuñu ci waxtaan wi ndax dañoo nekkoon daaru gay nekk ci euh, bokk gi ak yitte yi xalakul xaalin noo ngi ñaan yàlla dem ba defal nu fa lañu yéene mooy euh, connexion di fa am ngeen ñaanal ci bu baax nag wax dëgg yàlla mbokk yi def nañu effort wut wifi waaye taxul rek mu mën a dox su ma fa àggee jégglu nag mu mel ni gàmmu nañ ba noppi nag wax ay mbaax mbaax yi sallallahu alayhi ci diiru weeru gàmmu teroo ba ni ñu gàmmoo ba fan yi te mun na koo jeexal nu nag des na ci noonu kon ndax yor nanu sunu njariñ ñi nu jiitu woon muy saxaabatul kiraam wan nañu aw yoon ni fii sang bu tedd bi jaarloo nit ñi ku fi jaar daa mel nii nu mel dem ba jiite jamono ñi dul saaba yi muy taabiina yi ñoom ñëw ni wane nañu yoon ñu di ko jokk jalaate di ki jokk jalaate ba fii ci Sénégal làmpi diine yi fi nekk wane nañ ni yoon waa ngi nii ba jamono jii ñu toll ñi nekk ci loolu doonte <coughs> minorité lañu wane nañ yoon ndax ñi ngi toog fi fi ñu war a toog di wax lañu war a wax doon ay làmpi diine ji di leeral wane nañ yoon waaye majorité bi ci jamono jii lu toll jaaruñ ci yoon woowu buñ ko waxeet jaaruñ ci gis nga nag gàmmu dëgg ka jariñ mooy koo xam ni ah moom day fas na yéene xaratànku duwéyam ci lii fi sallallahu alayhi wa sallam indi suñu boroom jox ko ko mu doon moom <clears throat> ab julit dëgg bi tax ñuy wax mu mel ni liñ jàngati ci wàllu gàmmu te li ñuy wax rek nii duñu ni ah gàmmu ga dañ fa doon sàcc gàmmu ga day góor jigéen wéet nañ fa gàmmu ga day nangam am na gàmmu kon nañ ko bàyyi ndax niñ koy defee dafa xaraam kaay li muy jur ci njëriñ bul danga koy teg fële déedéet ah, aj màkk gis nga ci ci duus yi rek fi ngay sangoo rek sa cama sa caméra bi yor xaalis bi boo sàgganee ba am foo ko teg sangoo ba noppi doo ko fa fekk kooku ñu dem màkk ñu ci bari du may ni ñëpp de waaye ñu ci bari démb démb laaj ji mujj waxtaan ak eh, ak ñaar ñoo xam ñoom mosuñoo dem sa caméra doo ko fekk danga naa kon léegi nañ bàyyi aj bi ki ma leen waxoon ñu ko ñu ñu doon dagg caméra nag ci tawaaf bi tawaaf wër kaaba gi waaw ah. kon dañuy wax ak ñi ciy boole lu ci bokkul wax nit ñi ni nii lañ koy defee jël matukaay yi benn benn yey rëcc nag di def lu bon mbokk yi bu ñëwee màggal Tuubaa jàpp nañ fa téeméeri nit ak nangam waaw fu ñu naa juróom million ñëw na kay ah? kon ka nga xam ni noonu la mu samel lu jiitu màggal lu jiitu gàmmu lu jiitu aj du ko bàyyi wolof nee na tàmm laagul la kon booy tàmm tàmmal lu baax ginnaaw gàmm nag kon liñ ci war a jànge bokk na ci mooy nun ñaar nun julit yépp bëgg dem àjjana àjjana la koy maye moom la nag sang bi jàngale bi mu ñëwee te fekk nit mën na loola xam nga mën nga lii li ma koy jaaye mooy ku ñëw daggal ma garab gi xaral ma ko ba mu doon mat mu sew sama classe gi mënuñoo ñëw aw semmiñ dagg garab gu rëy gi xar ko mënuñu ko lislaam nag bi mu ñëwee moom lim ni lii mooy taxa doon ab julit te julit bu ne bu rafetalee rek mën naa yaakaar aljana te yàlla du tas yaakaar jaam waaw nam wax ni nit julit noonu lay mel bul ni melul nag noo ngi nax suñu bopp ngeen baal ma nag waaye masarote bi melul noonu masarote bi melul noonu waaw melul noonu de kon ndax bu ne xam nga dimbalante wax dëgg yàlla am na fu jekk am na fum mu mën a nekk waaye ñetta ne ña ñu tane duñ leen dimbali te suñu boroom subhanahu wa taala bu la joxee lim lay jox dafa la dim da bëgg nga dimbali ay jaamam am na ñoo xam ne dañuy yor alal mujj ñàkk ko ndax la ñàkk dimbale waaw mi noonu preuve yàlla dafa lay jox natt bi muy alal mu dim nattu mu lay xool ba xam ndax di am chance nga jariñoo ko nga jaamoo ko yàlla wala da ngay nay lool dangay ngay defee sa xel moo la ko may sax mën a jàng sax mën a lijjanti sax liggéey ndey sax nangam maanaam nga xam ni ñu ci bari lu ñu calculer ni sunu borom la subhanahu wa ko addis feeñ na feeñ na ci addis ni sunu boroom ne am na nit ñoo xam ne da leen di jagale ay xewleel ay xewal mu jagleel leen ko waaye ngir ñu jariñ jaamam su ko defee nag bu fekkee ne ñoom duñ ci jëriñ jaam yi yàlla jële ko ci ñoom yóbbu ko ci kaneen gis nga ko li addis la boo xam ne axrajahu xayshimi boo demee ci téere bu ñuy wax mañ maxul baxrayni fi sawaidil mujtamaaini di nga ko ca fekk mu ni inna lillahi aqwaman aqtasahum bi niamil manafiu ibadih yaqiruha fi imma baddaluha waaye fa isaa manauha nasaaha min um fa xawalaha ila gayrihim is nga ko léegi nag bu dee ko yu moom yàlla jox na ko waaye mi ngi ciy dimbalee yàlla ni ah, amul benn jaam bu yàlla xewele ak jox ko ko ba mu doy ndax xam nga am nañu xel ñam ëpp na leen moom mënuñu ci dara mu jey faj aajoy nit ñi di ca faj aajoy nit ñi nee su bàyyee lool rekk kooku exposé na boppam ci alal ji daal di tàggoog moom gis nga wax ni kon ku fajal benn gëm yàlla way gëm yàlla benn njàqareem ci àdduna yàlla dalay fajal sam njàqare ca àllaaxira waaye mbokk yi ñàkk jàkk jàq àllaaxira yàlla jégleelu ko ñépp léegi nag njàqare àllaaxira bu la ko yàlla fajal nga xëy moom dong dong moo ko mën a faj boo ko bëggee liggéey ko léegi njàqare boo kii jàppal ne noteel nañ la benn bu ñu la war a fajal yomal xiyam mu ni képp ku jàpp ni bépp jullit bu nekk ci jafe-jafe ci àdduna bu àllaaxira yàlla daal di koy defal beneen jàpp na ku suturaal ab jullit fii ci àdduna bu àllaaxira yàlla daal di suturaal waf waf mu gën yaatal mbir mi daal ni daal yàlla daal dee dimbali jaam bi feeg jaam bi mi ngi dimbali moroomu jaamam gis nga kon ñu ngi noonu loolu la tudde hadis boobu dama ko wax ci wolof rek hadis la boo xam ne moo mit muslim génn na ko lii lépp am na waaye noonu bokkul ak ñu bari ci li ñuy def ndax Euh, alal joo liggéey ci liggéeyin wa araam fàggo ko ci lu xaram ba am ko day jafe jaam bi jaamu ci yàlla te jaamu yàlla mi ngi tàmbalee ci dimbali jaamu ku gëm yàlla ku ku ku sonn foofu la jaamu yàlla ci alal tàmbale gis nga fanaan julli baax na lool waaye ay jullit sonn lool ñàkk pexe nga faj leen nga jox leen ñu lekk ñu ko dañ koy wuti ñi ngee ki bor fees dell dell kii mi ngi sooxaale tawat joo xam ni yooyu sëñ bi nga la ci taxaw subhanallah subhanallah day non seulement day barkeel alal ji waaye yaa ngi jënd sa aljana fii ci àdduna defaatoo boobu doon nit aljana kuy dox gis nga su boroom dafa tagg ñoo ñu di joxe seen alal alayhi salaam gën na gën na tabe ñëpp yaa ngi koy dégg ci fanim gàmm gi ñu di ko wax dafa tabe woon lool lool lool lool lool kon joxe ci yàlla mooy commerce bu dul am perte waaw alladina yunfiquuna amwaalahum bi leyli wa nahaari sirran wa alaaniyatan wa falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun suuratul baqara mi ngi doon yàlla tàgg la gaa yi nga xam ni dañuy joxe di fere ñoom nayuñu ci seen alal guddi yi gi guddi yi gis nga ko di joxe nit ñi di gis ni diw mii mi ngi joxe gis ko ndax li ñu joxe lépp mënuñu ko nëbb yàlla nee na dana leen ñeel day fa seen boroom ab yool dinañ am sécurité ba ñoom lu ñu tiit lu ñu jàq bu yamal xiyaam allahu akbar ay boroom àll yi nañu jënd ajana nañ jënd ajana inna la ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna loolu saxaaba yi ñoo amal sens boobu joxe seen bakkan ngir dem aljana joxe seen alal ngir dem aljana waaye ba léegi loolu jógu fi xoolal léegi ñi alal toxoo ci ay million yi ñu doon dégg diw millionnaire la diw milliardaire la léegi xam naa buñ baat bu ëpp milliard amee jombul dawoon day ñëw ba nu àgg ci ndax nii xaaj di gën a bare oto yi di gën a bare bâtiment yi di gën a bare ah yu ne yu ne di gën a bare ah mbokk yi loola ku ci tiitul ndax alal day jumtuwaay boo xam ni dafa mën a dafa mën a dëwye nit dafa mën a dëwye nit lool ba nit ku mujj soppeeku loolu nag bu amee day jaadu bu ñu tolloo ci jamono yii nga xam ni sang bi lañ doon fàttaliku lu delloo siwaat nag dundam nga ak waxam ji nga xam ni mooy solution bi ndax jamono dafa lënt léegi lenn ko mën a leeral muy làmpu sariya bu nee sariya nag alxuraan joo tawil firi ko ma nga ca xadis nabawiye yi nga xam ni ay saxaax la wér na ma nga ca al ijma ma nga ca dellu ci fuqaa yi ñoomit yi nga xam ni moom lañ jàngale eh, ma nga ca li say abañ lim nangu li mu sip li dagan li xaraam li lënt yépp benn bu ci nekk ndax suñu moom daa man affaire ba du cuune du juum mukk mukk mukk ndax la lu ma bëgg a wax mooy réew moom sàkk mu nekk rek na ma koy faral di waxee bàyyi na fa lu doy sëkk waa réew ma ci luñ mën a fajo luñ mën a dunde luñ mën a dëkk luñ mën a takkante seen biir sëy doy sëkk léegi nag nit ñi seen bopp ñoo ko dul seddale seddale bu yoon bu jaar ci yoon ñii day am ba am lu leen ëpp ñii am lu yem ci ñoom kepp ñi ci ëpp duñu am lu leen doy rek donte yàlla moo sàkk al aghniyaahu ak al fuqara al masakin ñett ñooñu yàlla leen sàkk waaye da da def benn xikma ci biir ngir bëgg nuy def taaruf bëgg ñuy def taawun bi bi bi bi xayril ismi nuy xamante bu baax xamee ni noonu ay nit la ñu ku ne am nga ay manqué manqué ku ne am na sa moroom loo soxla ci moom te yàlla moonu sàkk nii loo leen def ngeen doon ay askan ay giir yu wokkul waaye li taarafu ngir ngeen xamante duggante jariñante gis nga ko ndax noo koy def nim nu ko waxe déedéet lu tax diine wàcc loolu kese moo tax diine wàcc taaruf gi suñu borom bëgg ba wax ko moo tax diine wàcc waaye gis nga ko jël ñu bokk ci loolu di ay yonente alayhimu salaam di nit ni noonu duñu lu duñu jinne mu def leen ay yonent waaye yonente mu wàcc am na ku ko jege ci wàllu deret koo xam ne ab noonam lay doon bu fés walla bu fésul yàlla noonu la ko bëggee waaye nag nuyit lin yàlla sant buñ ci jaaree mooy li gën a li gën a jàpp suñu dund waaye bu nu gàmmoo rek bàyyi mu jàll mu dem ah kon xamoo yow lan la gàmmu di jariñ réforme bi ci mag ñi def ba mu jur njariñ lu rëy nii ba ñi ko daa kontar ñi ci jiitu di Arabie Saoudite ah, lu jiitu corona bi ñu tàmbalee joxe autorisation ku mu bëgg guddi gi nga génn wane sa cofeel nga wone ko ba loolu àdduna bi yépp seetaan ko ah dëggay mujj daal daanaa dégg olof di ko wax dëgg dëggay mujj xam nga lu yàgg dëgg la moom loolu waxee la woo ni njuumte la olof nag laa bari baat yu ñu koy waxal yu ñu war a defaraat ndax lu yàgg dëgg la moom seytaane yàgg na lool kañ la moo fi jiitu Adama de ndax dëgg la déedéet sàcc yàgg dëgg la déedéet fen yàgg na fi lool ndax dëgg la déedéet mën naa caa yendu te duma ko jeexal gis nga kon waaw kon ala kulli ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nga xam ni ñi ngi góor góorlu bu baax di jàngale sariya di nit ñi ba noppi jaar ca rawatina nag ñi ñu tudde ay nit diine doon ay boroomi mbooloo rawatina nag ñi cay wax ñu di leen dégg moo xam ay imam lañu walla bisu diine bi bu ñëwee di nga def benn discours wala nga santaane ko lu mel ni xalifa généraux yi ak ñi leen di waxal yàllante kon ñu dëpp ak lañu war a wax lañ doon xaar ci ñoom ñu wax ko ndax bu ki war a wax waxee la war a wax dina am ay benn benn yu jëfe loola daal cee jariñu rawatina jamono jiin nag nga xam lu ñu wax ñaari dañ koy bind tasaare ko mu nekk ci biir internet bi ah am na ay nit yu gindikoo di jubbantikoo am na ay jullit yu ci comprendre xam ni jullit yi duñu ñaari xaaj benn xaaj rek lañu alakul xaal ok ci yàlla kon di leen gën a continuer waxtaan wi waxtaan wi fii la yem rek waxtu jot na di leen jéggulu ci ñàkk gee def fan yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci ñàkk gee def fan yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jéggulu ci ñàkk gee def fan yi wasalaam alhamdulillahi alkarim bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني وهذا